nationale. abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi mai D'abord, l'actualité nationale. Recevant les cahiers de doléances des syndicats ce mardi, le président Macky Sall a insisté sur le respect des règles en matière de recrutement dans les collectivités territoriales. Tout recrutement en dehors de l'organigramme mis en place est nul et de nul effet, a-t-il averti. Pour le chef de l'État qui répondait à une interpellation de Sidia Ndiaye du FGTSB à propos de recrutement dans certaines mairies, un maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est soumis aux exigences de la loi et du règlement, sinon il est révoqué. L'hivernage s'installe-t-il au Sénégal En tout cas, Kédougou a enregistré des pluies ce mardi 3 mai. Ses premières précipitations sont tombées sur Salemata, une commune située à 85 km de Kédougou. Cette première pluie a été plutôt importante puisqu'elle s'est abattue sur toute l'étendue du territoire communal pendant une heure et demie. Toutefois, la météo précise que ce n'est pas encore le début de l'hivernage au Sénégal. Fin de règne pour la bande de malfaiteurs qui sillonnait la petite côte. La police de Mbour a arrêté les agresseurs qui étaient au cœur de plusieurs euh, agressions armées dont la dernière en date a eu lieu dans cette localité où un ressortissant indien a été délesté de 19 millions de francs CFA. Une femme a été retrouvée morte chez elle lundi, le jour de la Korité à la cité Taoufir de Tiaon Peul. Âgée de 60 ans, la défunte, une vendeuse de balais qui vivait seule, a été ligotée puis étranglée selon Libération. Originaire de Medina Gounas, elle faisait partie des victimes de, des inondations euh, recasées à Tiawan Peul. L'enquête a été confiée à la section de recherche qui traque le ou les suspects du meurtre. En Afrique, les corps de 24 migrants morts noyés après le naufrage de leurs embarcations au large des côtes du centre-est de la Tunisie ont été rejetés par la mer fin avril, renseigne Afrique de sources judiciaires. Du 22 au 30 avril, quatre embarcations parties des côtes de la région de Sfax ont chaviré au large de cette ville. Sur l'international, la décision des autorités maliennes de dénoncer les accords de défense avec Paris et injustifiée à protesté mardi le ministère français des Affaires étrangères, précisant que la France poursuivait son retrait militaire en bon ordre comme prévu dans les prochains mois. Bamako accuse notamment Paris de multiples violations de son espace aérien et d'atteintes flagrantes à son souveraineté nationale. Nous terminons par le sport. Le maillot que portait le footballeur argentin Diego Maradona quand son pays a battu grâce à lui l'Angleterre à la Coupe du Monde 1986 a été adjugé pour près de 9,3 millions de dollars, soit 5 milliards 779 millions 950 000 francs CFA, pulvérisant tous les records pour un maillot sportif de collection a annoncé la maison d'enchères Sotheby's, le précédent record était détenu par un maillot porté par la légende américaine du baseball Bud Roth à la fin des années 1920, vendu en 2019 à 5,6 millions de dollars. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.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 wala nga envoyé email jot réponse bu gaaw te woo si ikfa online arobas gmail com ikfa daal yéex naa ñëw.